Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye mi ngi feeñ jamono ci atum 1856 jàpp 1857 ci dëkk bu ñuy wax nga Ngayeen Maxtaar nekk nag ci suuf si nag di Njàmbur ci région nag de Louga ci dëkk boobu nag la Serigne Omar Gueye feeña jamono di doomu Serigne Maxtaar Mbay Gueye ak soxna Anta Nguna Gueye moom Serigne Omar Gueye nag amul kenn nag kum bokkal soxna Anta Nguna Gueye ak Serigne Maxtaar Mbay Gueye benn bant la nag ci waajuram wu góor ak waajuram wu jigéen bi matee dal alxuraanul karim waajuram Serigne Maxtaar Mbay Gueye nag moo ko dalal alxuraanul karim dëkk boobu nag di ngëyeen maxtaar ginnaaw bi nag la ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax badar géey ci kër sëriñ maxtaar géey jébbal ko ko nag ngir mu wéel nag ak njàngum alxuraanul karim ci sëriñ maxtaar géey nag la mokkale alxuraanul karim xam-xam itam nag ci sëriñ maxtaar géey itam nag la ko jàngee sëriñ maxtaar géey nag moo nekk waajuru sëriñ Moussa Alima Géey ak sëriñ Mor Alima Géey bi mu nekkee nag ci dëkk boobu nag di badar géey la tombeek nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul nag woote lii ñu tudde nag yoonu murit ci atum 1883 ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor sëriñ Omar Géey daa bàyyi nag lépp lu doon def dem wuy ji nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nekk nag am murit mu bokkitim nag ci mag ñi njëkk a jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor ginnaaw bu mu jaayantee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci dëkk nag di mbàkke kajoor dafa wéy nag des nag ci loxoy seexul xadim ba ni seexul xadim bàyyi ko ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor ñëw nag mbàkke bawal ginnaaw mbàkke bawal daaru salaam ginnaaw daaru salaam tuubaa lépp itam nag sëriñ omar géey mi ngi topp nag ci ginnaaw ku ki sëriñ tubaa xaadim rasuul jiital ci ginnaaw seexul xaddiim fépp foo xam ne nii nag seexul xaddiim dem na fa ànd nag sëriñ Omar Gueye moo xam mbàkke bawal moo xam daaru moo xam Touba ba ci dëkk bi nag di mbàkke baari jolo fa bi sëriñ Touba seexul xaddiim nag di dem mbàkke baari jolof ci mbooloo mi àndoon ak moom dem mbàkke baari jolof itam nag ci la sëriñ Omar Gueye bokk bi seexul xaddiim nag di dem ci géej gi ñim bàyyee woon ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Omar Gueye mi itam nag ci la bokk sëriñ Omar Gueye nag wéy des nag ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba ni seexul gi bi seexul xaddiim nag jógee ci géej gi ci bi muy woolu maam Thierno ci fukki fan yaag juróom nag ci weeru baraxlu wi bisub keroog itim maam Thierno itim nag mbooloo mi mu àndaloon sëriñ Omar Gueye mi itim nag ci la bokk sëriñ Omar Gueye itam bi maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru giseeg seexul xaddiim ba noppi bi maam Thierno nag di del si daaru marnaan daa bàyyi sëriñ Omar Gueye nag ci loxoy seexul xaddiim fépp foo xam ne nii seexul xaddiim nag jaar na fa ba nim dikkaatee daaru marnaan nag ci maam Thierno sëriñ Omar Gueye itim nag ànd naa ak moom bi seexul xaddiim nag tolloo Luga loo te soxla woon a Mamadul Basir moomam sëriñ Omar Gueye nag moo ko dem jëli indil koko bi seexul xadim nag di gis cheikh Mamadul Basir Mbàkke sëriñ Omar Gueye nag moo ko njëkk a wan ànd googa mu àndoon ak seexul xadim ci fépp foo xam ne ni seexul xadim jaar na fa bi seexul xadim nag di ñëw daaru salaam ci ngan gi mu doon amal nag ci maam cheikh Anta Mbàkke bisub keroog seexul xadim mi ngi doon xamal nag ñi mu àndaloon di wax ne daal ku njëkk daaru salaam yaay ëppub yool sëriñ Omar Gueye nag moo njëkkoon daaru salaam ci bisub keroog bis boobu itam nag la ak njabootam itam nag moom lañ koy fàttaliku ci li ñu tudde nag ak màggala bisub keroog seexul xadim moo leen wax kon ne ku njëkk daaru salaam yaay ëpp bi yool te sëriñ Omar Gueye nag moo njëkkoon daaru salaam loolu moo waral itam nag ak njabootam di ko fàttaliku nag ci bisub ñaar fukki fan nag ci weeru korite mu wéy nag des ak seexul xadim ba ni fi seexul xadim bàyyi ko nag dem gànnaar bi seexul xadim di dem gànnaar mbooloo mi àndaloon dem gànnaar sëriñ Omar Gueye itam nag ci la bokkoon gànnaar googu itam nag la wéy nekk ak seexul xadim ba ni mu jotee ngërëmam nag ci dëkk boobu nag di gànnaar ci réew moomu nag gànnaar nag la ko seexul xadim gërëmee bi ko seexul xadim nag di gërëm moom sëriñ Omar Gueye mi ngi ko doon xamal leer nag waxal loo bëgg nag suñ borom defal la ko mu di ko xamal ne cheikh mamadul moustapha mbàkke daal mat luñ ko doon doyee loolu rek moo nekk sama bëgg-bëgg mujj na jot ngërëmam nag ci loxoy ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul mu delsiwaat nag ci réew mi nag di sénégal dem na kër nijaayam ju ñuy wax nag moor anta ayib loo ci suuf soosu nag di njàmbur ginnaaw bu mu fa nekkee ab biir nag la nijaayam jooju nag génn àdduna sëriñ omar géy nag bindoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim ab lettre di ko xamal ne gis naa fi soxna suñuy wax soxna sëy na bu jeng xam mën naa koo dëkkoo waaw wala déet sëriñ Touba Seexul Xadim nag bindaatoon na ab lettre nag sëriñ Omar Gueye di ko wax ne soxna Seynabou Dieng moom nag mën nga koo dëkkoo ndax dara nekku ci suñ borom xamal na ma ko sëriñ Omar Gueye soxna Seynabou Dieng moomu nag la njëkk a dëkkoo soxna Seynabou Dieng moomu mook sëriñ Abibou Dieng mi nekkoon chef du village ci dëkk bu sell bii nag di Touba ñoo bokk waajur wu góor sëriñ Touba Seexul Xadim nag wéy des gànnaar ba ci atum 1907 mu jógee gànnaar nag ñëw ca yéen Jolof ca Jolof googu nag sëriñ Omar nag daana ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ginnaaw ci yéen jolof nag njaareem njaareem googu itam nag sëriñ Omar Gueye daana fa dem nag dafa fekk ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba tax na njaareem itam nag la ko ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul waxee ne sëriñ Omar Gueye demal Touba nag nga xaar ma fa da nga dem nag fekk fa ku ñuy wax Mor Soxna Diop ak Makhtar Penda Dieng ak Mor Xari Kebe ca ndénkaan la ko sëriñ Touba Seexul Xaadim waxoon moom sëriñ Omar Gueye nag bisub keroog bi mu koy yebal ci dëkk bu sell bi nag di Touba soo demee nag nga def Touba muy sa gétt da nga def alxuraanul karim jiital soo eggee itam nga fonk waxtu yu juróom waxtu yu juróom nag bu jagee lépp lu di woon dana jag waxtu yu juróom nag bu jagul lépp nag lu jagoon itam dana jagadi ndénkaan lii nag la seexul xaddim waxoon sëriñ Omar Gueye keroog bi mu koy yabal nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba sëriñ Omar Gueye nag wiy nekk Touba nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasul daana def nag saa bu nammee ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasul dem ziyaari ji ko njaareem heure bu ko ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim soxla woolu ko nag ci dëkk bu sell boobu itam nag di njaareem am na Touba Seexul Xadim di la ma koy wax ndax mu may jàmbat nag mar wu metti waaye da ngeen dem nag ba ndox mi daw dawaan nag ci seen buntu kër yooyu loolu Seexul Xadim waxoon Serigne Omar Gueye tey tiwa central bu mag bi buntu kër Serigne Omar Gueye nag la jaar Serigne Omar Gueye itam nag daana wax ne am na bis itam nag Serigne Touba Seexul Xadim doon ko wax ne da ngeen dem ba àdduna bépp nag nekku tàkk sama dëkk boobu nekku dër Serigne Touba Seexul Xadim itam nag mas naa wax Serigne Omar Gueye loolee ngeen di xemmeem ci dëkk bële nag di Ndar Géej da ngeen dem nag bañ leen koy tegal nag ci seen buntu kër yi seexul xadim nag mas na ko wax ne omar xam nga yéex a ñëw tuubaa lu muy jariña mooy sa puj nag sori pénc ma mu wéy nag des nag ci dëkk bu sell bi nag di tuubaa ci ndigalul ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xadim ba ni mu génnee àdduna ci atum 1959 sëriñ omar géey nag am na nag ay soxna nag yum loon ànd ak ñoom nag di liggéey ngir sëriñ tuubaa seexul xadim ci biir soxna yim dëkkoo woon ñu man cee ràññee soxna Seynabou Dieng mook sëriñ omar géey am nañ nag ak njaboota ci biir soxna Seynabou Dieng ñu man cee ràññee sëriñ ko sëriñ Omar Gueye faye woon cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Touba Xaadim Rasoul ak soxna Ummi Gueye bi ko sëriñ Omar Gueye faye woon soxna Ummi Mbacke bintu sëriñ Touba Cheikhul Xaadim baneen soxna nag bu sëriñ Omar Gueye dëkkoo woon muy soxna Faati Salayaata Dieng mook sëriñ Omar Gueye nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Gueye di ko sëriñ Omar Gueye faye woon sëriñ Touba Cheikhul Xaadim ak soxna Boussa Gueye di ko sëriñ Omar Gueye faye woon soxna Jaaratullaahi ak ku ñuy wax maam Thierno Gueye di ko sëriñ Omar Gueye faye woon maam Thierno soxna ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru njaboot gii nag la soxna faati saala yaata jeng nag am ak sëriñ omar géey ba tey soxna yi sëriñ omar géey dëkkoo woon ñi mën cee ràññee soxna anta anta nguna nag moo meññ te sëriñ omar géey faye woon cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuba xaadim rasuul ak sëriñ omar géey faye woon soxna aminata loo miy waajur cheikh mamadul mustapha mbàkke ak cheikh mamadul lamin baara mbàkke di soxna aminata géey ba tey soxna yi sëriñ omar géey dëkkoo woon ñu mën cee soxna busa soxna busa njaay sëriñ omar géey nag am nañ ak njaboota ci biir njabootuk soxna Buso Njaay ñu mën caa ràññee soxna Safiyatu Géey man caa ràññee sëriñ Xaadim Géey di ko sëriñ Omar Géey faye sëriñ Touba Seexul Xaadim moo nekk itam ñaareelu xalifa sëriñ Omar Géey ba tey ci njabootuk soxna Buso Njaay ñu man cee ràññee sëriñ Cheikh Géey di ko sëriñ Omar Géey faye woon ma sàmba Mbàkke mi caatu Mamor Anta Sali Mbàkke ak soxna Maam Ami Géey ak soxna Maymunatu Géey di ko sëriñ Omar Géey faye soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Touba Seexul Xaadim di borom laylatul xadar Bousso Ndiaye ak Serigne Omar Gueye ba tey ñu man cee ràññe Serigne Bassirou Gueye di ko Serigne Omar Gueye faye woon Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul ak soxna Momi Gueye di ko faye soxna Momi Natu Mbacke bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim ba soxna yi Serigne Omar Gueye dëkkoo woon ñu man cee ràññe soxna Diobou Silla soxna Diobou Silla mii nag am na ak njaboot ak Serigne Omar Gueye ñu man cee ràññe soxna Maam Faati Gueye di ko Serigne Omar Gueye faye woon waajuru Cheikh Mamadou Bachir Mbacke di soxna Faati Madouman Diop ak soxna Maam Awa Gueye fayewoon waajur cheikh Mamadou Fadal Mbàkke di soxna Awa Bousso ak sëriñ Ahmadou Kabir Gueye ba tey soxna yi sëriñ Omar Gueye dëkkoo woon ñu mën cee ràññe soxna Ngeera Gueye moom meññi soxna Aminata Gueye ba tey soxna yi sëriñ Omar Gueye dëkkoo woon ñu mën cee ràññe soxna Awa Xujjaloo soxna Awa Xujjaloo mi moom meññi soxna Assu Gueye soxna yii nag la sëriñ Omar Gueye dëkkoo woon ñoom it njaboot yii nag lañ am ak sëriñ Omar Gueye tax na sëriñ Omar Gueye tim nag ñu takkoo takkoo takku nag ci njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim amoon nag ñoom nag ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim di dem ci géej gi ci atum 1895 ci njaboot gim bàyyee loon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Omar Gueye mii nag ci la bokkoon sëriñ Omar Gueye ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xadim jógee ci géej gi bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadim nag jógee ci géej gi ci atum mu wooloo maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk boobu nag di ndar géej sëriñ Omar Gueye ci ñi maam Ceerno Ibrahima Faati Faati Mbàkke ndaamal daaru àndaloon ngir wuy ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ci dëkk boobu nag di Ndar géej tim nag ci la bokk ginnaaw bu maam Ceerno Ibrahima Faati ndaamal daaru nag giseeg sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ci dëkk boobu nag di Ndar géej dafaa bàyyi woon nag sëriñ Umar Géey ngir mu ànd ak ku baax ki sëriñ na fépp foo xam ne nii ku baax ki na mu ñëwee daaru Marnaan sëriñ Omar Géey nag mi na sëriñ Omar Géey tudde na maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru doom Seex Masamba Mbàkke di rakki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon ak Serigne Omar Gueye la ndax ñoom ñaar bokkoon nañ nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci ndigalul ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul Serigne Omar Gueye fayee na Cheikh Massamba Mbacke doom ba tey ci kóllëre yi Serigne Omar Gueye amoon ñu man cee ràññee Serigne Amsatu Jaxate taawub Serigne Amsatu Jaxate di Serigne Abdoulahi Jaxate yoroon na doomu Serigne Omar Gueye di soxna Assu Gueye ba tey kóllëre yi Serigne Omar Gueye amoon ñu mën cee ràññee Serigne Mor Kayre bokkoon itam nag ci bindkati Xaadim Rasuul yi ku jaxasoo woon ak Serigne Omar Gueye la ba tey kóllëre sëriñ Omar Gueye ñu man cee ràññee sëriñ Modou Sow Ba bokkoon itam nag ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ñoom ñaar bokkoon nañ nekk itam nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba tey ci kóllëre yi sëriñ Omar Gueye amoon ak mag ñi ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mor Soxna Diop sëriñ Mor Soxna Diop mii moo njëkk a yor nag barabo ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon ak sëriñ Omar Gueye la bi sëriñ Touba Seexul Xaadim nag di yabal sëriñ Omar Gueye ci dëkk bu sell bii nag di Touba ñetti sëriñ Tuubaa Seexul Xadim tuddaloon doon ko xamal na nag su ngeen demee wala soo demee nga fekk leen nag ci dëkk bu sell boobu nag di Tuubaa da nga nekk fa ak ñoom muy sëriñ Moor Soxna Diop ak sëriñ Maxtaar Penda Dieng ak sëriñ Moor Xari Kebe taxoon na bi sëriñ Omar Gueye nag njëkkee ñëw Tuubaa ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci daarul minnam nag la nekkoon ak ñoom ginnaaw ba mu fa defee nag lu tolloog ñaari at jàpp ñetti at la ko Seexul Xadim nag doon xamal ne na a jege nag dëkkam ba di Tuubaa loolu moo waral nag sëriñ Omar Gueye ñëw nag sanc ci ginnaaw kër mag ngir dëkk fa ba tey kóllëre yi sëriñ Omar Gueye amoon ak mag ñi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ñu mën cee ràññi ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye Diop Léona dëkk itim nag ci Touba Daarul Minam gor itim quartier boobu ñu tudde Léona nag ci Daarul Minam ku jaxasoo woon ak sëriñ Omar Gueye la ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ñoom ñaar boole woon na leen nag am ndénkaane soo demee nag ca ndénkaan ba wala lettre bi sëriñ Touba Seexul Xaadim bindoon sëriñ Omar Gueye ak sëriñ Abdoulaye Diop Léona sëriñ Touba Seexul Xaadim ma ngay wax ne am mbind la nag mu jóge ci man jëm na ci ñaari murit saadeex ya di sëriñ Omar Gueye Boy ak Abdoulaye Diop leew na maa ngi sant yàlla ci tànn na gum leen tànn ngeen nekk nag ay tànneef ma ngi leen di ñaanal nag di wax ne yàlla na mucc ak xéewal nag nekk nag ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi leen di xamal nag yéen ñaar yàlla na gërëm na leen ci nekk nag gu ngeen nekk ba tey maa ngi leen di xamal ne nag yéen ñaar yàlla itam nag musal na leen nag ci ak waru ci seen àdduna ak alaxira maa ngi dëggal nag ba tey na yéen ñaar lépp lu ngeen yaakaar suñ boroom nag dana leen ca fekk si ci àdduna ak alaxira ci darajey ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi teewlu lettre nag bu sëriñ Touba Seexul Xadim bindoon sëriñ Omar Gueye ak sëriñ Abdoulaye Diop leew na ci ñoom ñaar nag ànd guñ ànd ñu teewlu lettre bi hada kitaabu katabahu acheikh li muridihi sëriñ Omar Gueye wa sëriñ Abdoulaye Diop leew na li yakuna lahuma jawaaban alhamdulillahi alladi jaalakuma muxtaaraani limaxtiira lakuma wassalaatu wassalaamu ala man lawlaahu lamma adri ma bihi ujibakuma famdiya raajiyeyni kawnakuma naajiyeyni min alxururi fi dunya wal axira wallahu tabaraka wa taala taala yuxaqiqu rajaakuma wa rajaa kulli man rajaa man rajawtuma fi dunya wal axira bi jaahi sallallahu alayhi wa ma naqul wakil ba tey ci kóllëre sëriñ Omar Gueye ñu man cee ràññee Cheikh Moussa Ka bind na lu bare bare bare bare jëmale ko nag ci sëriñ Omar Gueye ci ak seede ci farlu nag gu sëriñ Omar Gueye farlu woon nag ci yoon wi soo delloo ci mbind mi sëriñ Moussa Ka bind mi ngi seede ne sëriñ Omar Gueye sëriñ Touba Seexul Xadim woo ko ay yooni yooni yoon di ko ne nag waxal loo bëgg nag ñu defal la ko saa tontu rek la daa tontu nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul mooy seex mamadul moustapha mbàkke sa moom mii mat nag luñ ko doon doyee looloo taxoon ba bamba ne Omar Gueye ñëwal fi man ma faj say aajo tey tey mu ne ko moustapha na def xalifa mooy sama aajo su amee ma deefa seex bamba naa ko xëkkataa yëkkoonu kun fayakoon moo ko may sukkoon noonu mu jaxasoog mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ni la amee woon kóllëre nag ak doomu sëriñ tubaa seexul xaddiim yi moo xam ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi ba ci soxna yi sëriñ tubaa seexul xaddiim nag dëkkoo woon ñu mën cee ràññe cheikh mamadul moustapha mbàkke ku jaxasoo woon ak sëriñ omar géy la saa bu ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool masaa laaj nag sëriñ omar géy loo bëgg mu di ko xamal ne cheikh mamadul moustapha mbàkke daal mat nag lañ ko doon doyee tudde na cheikh mamadul moustapha mbàkke doom tudde na waajuru cheikh mamadul moustapha mbàkke Mbàkke doom di soxna Aminata Lo ku jaxasoo woon nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke la ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag la génnee àdduna ci atum 1959 Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi Sëriñ Omar Gueye tudde na Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke doom tudde na waajuru Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke doom di soxna Awa Bousso Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag bindoon na lettre Sëriñ Omar Gueye soo delloo nag ci lettre bi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke bindoon Sëriñ Omar Gueye ginnaaw bu mu ko nuyoo moom Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ca lettre ba nag ma ngi ko tàmbalee yow murit bi nga xam ne nii sa cofeel nag dafa tar ci sopp gi nga sopp nag li nga sopp te ki nga sopp nag moo di Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadul Faadal nag mi ngi koy wax ci lettre bi mbaax nag bokk na nag ci li gën a baax mooy nag ngay jokk nag ak wóllëre muy wóllëre nag gu fi baayam bàyyi woon sëñ Fall nag mi ngi koy xamal ne ko ne lu tee nag ba du jokk nag wóllëre gi ndax wóllëre gi nag leer na ñépp nag ne mi ngi doxoon nag ci diggante Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi sama waajur ak yow mi nga xam ne nii nag yow laay bind lettre bi nag di Sëriñ Omar Gueye yow Sëriñ Omar nag ne la leer nag lettre bii ma lay bind ci sama teeyu bakkan nag laa ko bind ak sama dalu xol ñaanal ko jàmm nag ci darajey ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam di ko xamal na nag lettre bi mi ngi jóge nag ci cheikh mamadul faadal mbàkke mi nekk Touba ñu teewlu nag lettre bi cheikh dul faadal mbàkke bindoon sëriñ Omar Gueye di sàmm nag kóllëre nag gu sëriñ Touba cheikhul xadim amoon nag sëriñ Omar Gueye ma mu mamadul faadal mbàkke xam ne nag moo toog toogaayu sëriñ Touba cheikhul xadim muy fàttali nag sëriñ Omar Gueye kóllëre nag gum amoon nag cheikhul xadim moom nag mu toog toogaayu cheikhul xadim googu mu doon jokk kóllëre gi nag di ko wane ne nag ba nëg ni seexul xaddim nekku fi waaye comme maa ngi fi kóllëre gi nag dinaa ko sàmm ñu teewlu lettre bi ayyuha al muridu alxaaj Cheikh Omar Gueye ibnu al muxtaar min abarril birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi wa kayfa laa asiluka wala yaxfa alaya baadu maa yantu alintu bayna cheikhi wa baynaka min al mawaddati wal muwasalati wa innama katabtu laka an taybi nafsi wa qurratu ayni wa salaam wallahu ala ma naqulu wakil alxaaji Mouhamadul Fadil Mbacke Touba ku jaxasoo woon nag Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul la bi Serigne Touba Seexul Xaadim jógee ci géej gi ci atum 1902 Serigne Omar Gueye moo njëkk a wan nag ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Basiiru ci dëkk boobu nag di lugaloo soo delloo ci mbindum Cheikh Moussa Ka ma ngay wax ne Omar Gueye moo wan ba ma mu dul Bachir Mbacke tax na tudde na mu dul Bachir Mbacke doom tudde na waajuru ma Cheikh dul Bachir Mbacke doom di soxna Fatima Dumaan Diop Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke mas na wax nag lenn ci njabootuk Serigne Omar ci njaareem di leen xamal na seen maam ku jàmbaare woon la ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ndax ci gànnaar googu sëriñ Tuubaa seexul xaadim amoon na fa kees goo xam ne nii ku dul sëriñ Omar Gueye mayu la woon nag nga fekk ko fa mu wéy nag des nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 1959 bi mu nekkee nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ci yar ak jàng ak jàngale ak tarbiya nag mbooloo mi àndoon ak moom ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ci biir mbooloo mi àndoon ak moom ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Njéeme Géey ak ku ñuy wax sëriñ Omar Géey ci dëkk bu ñuy wax Sanjara ak ku ñuy wax sëriñ Buu Géey ba tey itam nag ci dëkk bu ñuy wax Sanjara mbooloo mi àndoon ak sëriñ Omar Géey nag di liggéey ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Mor Géey ak ku ñuy wax sëriñ Ousmane Géey ak ku ñuy wax Mafal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu àndoon ak sëriñ Omar Géey di liggéey nag ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Omar Géey nag bi mu nekk amoon nay tool nag ci ginnaaw kër sëriñ Tuubaa Seex Sohaybu bu Mbàkke amoon nay tundóo diwi tundóo di itim nag daana fa baye ji moom sëriñ Omar Gueye nag daana wax nag mbooloo mi mu àndal xam ngeen lan moo tax may gor sama gor yu bari yi maa bëgg nag bu ëllëgee sama mbokk mu ñëw nag ma ne ko dëkkal fii moom nag mi ngi dëkkoon nag ci ginnaaw kër gu mag gi di kër sëriñ Touba Seexul Xadim gi wuuf jumaa ji jàpp na kër sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke gi ci 1952 jàpp 1953 bi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag di génne mbedd mu mag mi la mbedd mi nag jaar nag biir këram ñu wàññi kër gi néeg sëriñ Omar Gueye dëkkee woon mi ngi tolloog nag bitig bi nekk nekk ci koñu kër sëriñ Touba Seexul Xadiim gi ci kër googu itam nag la génnee àdduna ci atum 1959 mu nekkit nag ku yéeme ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul musta bëgg ko wax dara nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul bi Seexul Xadiim nag nekkee Daaru Marnaan ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kërug Daaru Marnaan gi nag tàkkoon na fi tàkkaale itam nag ak benn téere boo xam ne ni ab saalum saalum moo ko abaloon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul bi saalum saalum bi nag yónnee doon laaj ku baax ki sëriñ boobu mu ko abaloon seexul xadim nag mi ngi doon xamal ndaw la di ko wax ne daal téere ba dafa tàkkaale daal ci lakk gi fi amoon seexul xadim nag joxoon na nag ndaw la lu mën a remplacer nag xasida ga ginnaaw bu ndaw la eggee nag saalum-saalum ba nag doon na ko xamal ne man daal sama téere ba nag laa bëgg moom mujjoon na ñëw nag ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool doon ko xamal sa kër gi daal li rëy rëy rëy fi dara nag lu sama téere bi loolu nag bi ko sëriñ Omar Gueye yëgee metti woon na ba jëflante woon naag saalum-saalum booba bisub keroog nag ku baax ki sëriñ tubaa dox na ci seen diggante ba tey ci tolluwaayu sëriñ Omar Gueye ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci gànnaar bi fa seexul xadim nekkee am na nag tubaab buñ doon wax faroox tubaab la itam nag bu sonaloon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul saa su ne daana yëddu nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul tubaab boobu itam nag sëriñ Omar Gueye itam nag duma woon na ko fa nag duma yu metti tubaab ba ci la jëla retraite ba tey fonk gu sëriñ Omar Gueye fonkoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul seexul xadim woo na ko ay yooni yooni yoon nag di ko wax Omar waxal nag loo bëgg nag ñu defal la ko mu di ko xamal ne Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sa moom mat nag luñ ko doon doyee ba tey ci diggante sëriñ Omar Gueye ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul Seexul Xaadim nag bindoon na ko lettre mook sëriñ Ablaye Diop leew na doon leen xamal ne sant na yàlla bu baax a baax a baax bi ko suñ boroom nag woolee ak sëriñ Omar Gueye ak sëriñ Abdoulaye Diop leew na ba tey ci diggante sëriñ Omar Gueye ak baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul bi Seexul Xaadim jógee ci géej ci ngan gi mu amoon nag ci maam Cheikh Anta Mbacke bisub keroog nag Seexul Xaadim mi ngi doon xamal ñi mu àndal di leen wax ne nag ku njëkk Daaru Salaam yaay ëppub yool bisub keroog nag sëriñ Omar Gueye itam nag moo njëkk daaru salaam bis boobu sax la ak njabootam jàpp di ko ci fàttaliku muy ñaar fukki fan ci weeru korite ba tey ci diggante sëriñ Omar Gueye ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke nettali na lenn ci njabootuk sëriñ Omar Gueye gi di leen wax ne ci gànnaar seexul xadim amoon na fa kees goo xam ne ni ku dul sëriñ Omar Gueye daawoo ko fa fekk sëriñ Omar Gueye mu dul Faadal Mbàkke fonkoon na ko lool ba wax nañ ne ci diirub nag li Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke toog xalifa bis bu set nag daana yónnee juróom benn fukki dërëm sëriñ Omar Gueye mbàkke keroog bi sëriñ omar géey génnee àdduna ba mu jullee ko ba noppi seede bi cheikh mamadul faadal mbàkke nag def ci ginnaaw sëriñ omar géey wax na ne di jàmbaar mi ngi nii tëdd jàmbaar itam nag dem na bari na nag ñu ko xeeboon ci àdduna waaye ëllëg fa ñu jëm ku ko fa fekk nag da nga ko ñee sëriñ omar géey nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci këram gii nag wuuf jumaa ji ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ci bisub altene juróom-ñetti fan ci weeru tabaski ci atum 1378 ci gàddaay gi altene juróom-ñetti fani tabaski ci atum 1378 ci gàddaay gi dëppoog muy lundi 15 juin 1959 lundi 15 juin 1959 ci dëkk bu sell bii nag di Touba ci xilaafa doomu Serigne Touba Cheikhul Khadim bii ñu ma mu dul Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou faadal Mbacke moo ko jullee ñu jébbal ko boromam nag ci armeer yu mag yi keroog bi mu génnee àdduna ba ma Cheikh Mamadou faadal Mbacke taxawu ko nag ba noppi doon na xamal ne Serigne Omar Gueye mii képp koo xam ne xeeboon nga ko fii nag ci àdduna ëllëg yow mal xiyaam nag ku ko gis da nga ko defoon ci ginnaaw bu mu taxawoo Serigne Omar Gueye ba noppi ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dale ci atum 1959 ba ci atum 1996 xalifaam bu njëkk di Serigne Gueye di kim fay Serigne Touba Cheikhul Khadim ñaareelu xalifa Serigne Omar Gueye ci atum 1996 la ba nëgëni di Serigne Khadim Gueye di kam fayewaat ku baax ki Serigne Touba Khadim Rasoul ñuy ñaanal turandoo Cheikhul Khadim wii nag di Serigne Khadim Gueye suñ borom yàggal ko nag ci toogaayu waajuram wii ak mboolem nag ñi mu séqal Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye nag nag buñ koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal bu njëkk nag daanañ ko fàttaliku ci juróom-ñetti fan ci weeru tabaski di bis bi mu génnoon àdduna soxna maam faati jeng nekkoon soxnaam moo ko daa fàttaliku nag ci bis boobu daa defitim nag saa bu juróom-ñetti fan ci weeru tabaski ñëwee mu wàcceel sëriñam boobu nag ay kaamil ba ci atum 1996 ginnaaw bi itam nag la ay sëtam dem ki fi nekk loon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul di sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke di ko xamal ne sëriñ omar géey bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim lañ bëgg a wut nag ab bis xamuñu nag bis bi nga xam ne nii nag moom la jaayante woon nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul waaye xam nañ bis bi nga xam ne nii moom la sëriñ tubaa seexul xaadim waxoon ne ku njëkk daaru salaam yaay ëppub yool te moom nag mu njëkkoon daaru nag ca bis booba bis booba itam nag lañ bëggoon a jàpp daal ko ci fàttaliku bisub keroog sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mi ngi tontu njabootuk sëriñ omar géey di leen wax ne loolu daal ànd naa ci te maa ngi ñaan nag mu jëm kanam boobaak léegi nag saa bu ñaar fukki fan jotee nag ci weeru korité xam ne ku njëkk daaru salaam yaay ëppub yool te seen waajur woowu nag njëkkoon daaru salaam ngërëm loolu nag mu amoon ci seexul xadim ngërëm loolu itam nag lañ jàpp ci bëccëgu ñaar fukki fan nag ci weeru korite ci këram gi nga xam ne nii fi la génnee àdduna tem wuuf jumaay tuubaa ji ci kër googu itam nag lañ koy fàttaliku màggal gi itam nag màggalug bëccëg la su tàkkusaan jotee nag ñu ñaan jàppaadu bis bi déwén ñuy ñaan ci jàmbaari sëriñ tuubaa seexul xadim ba kañ doon wooye sëriñ omar géy yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu nag ci barkeem lii di jafe-jafe mi itam nag yàlla suñ boroom saafara dara darajey mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim amiin Seexul Xaddiim amiin